axlaam wala gént yi nga xam ne dafay dellu ci xeetu jaamu yàlla yi maanaam gént dem màkka gént woor gént jàpp gént julli noonu lañ koy toppee ba nga xam ne lu ci nit gént rek da dugg ci page boobu am ca réponse bu exact tey ñu ñëw ci gént dem màkka li ngay jàpp danaa ñëw ci dem màkka waaye fii dafay ànd ak omra defoon naa benn video bi spécial ci omra waaye boo xoolee la ma firi ci omra moom lañ firiwaat ci yoonu màkk def naa beneen vidéo ci gis kaaba gi te bariwul ay wuute moo tax dañ koy benn video boo xam ne dana complété nga xam ne loo gént ci yoonu màkk ak lu ci aju danga mën a am réponse pour exacte bi euh, yoonu màkk ci gént wala gént gis kaaba gi dafa bokk ci gént yi nga xam dafay dellu ci ragal yàlla ci aji gént ci maanaam nit ki nekk ku am ak fekk wekk ci boromam ñaar bi dana firi xam-xam ci ki nga xam dafa nekk ci yoonu xam-xam dana wax ni dana firi ci nit ki mën naa dem ba amee daraja ci wàllu euh, juge ci magistrature wala yu mel noonu léeg dana firi yàlla namm laay wala yàlla boole la ca ñamu xéewale ëllëg ñu namm dugg ajjan yoonu makk dana firi ñaan gu nangu ci aji gént ji yoonu makk dana firi aajo bu faju bu të yàlla namm laa dimbale mu faju yépp dana ko firi yoonu makk léeg-léeg dana bokk ci yemi firi gudd fan yoonu màkka dana bokkut ci yemi firi léeg-léeg dana firi istiqraar ci isor yi maanaam stabilité ci sa wàllu njaboot ci ki nga xam ne dafa am soxna wala mu nekk ci yoonu màkka ci ab célibataire léeg-léeg dana firi kër wala euh, soxna yoonu màkka dana firi mucc ci problème wala ci njàqare rekk xat-xat yoonu màkka dana firi ci ki nga xam ne dafa amee bor yàlla na mu ko dimbalee ba ay borom mu fay ko kon yëpp na ko firi danaa ñëw ci détails yi benn benn euh, kon ban pourcentage la gént dem màkk am ci aji gént ji mën nga jàpp ne baax na ak quatre-vingt-dix-neuf kon dina ñëw ci détail dem màkk ba gis kaaba gi li ma wax sànq baax na waaye yow ki may njëkke mooy ki nga xam dafa gént gis kaaba gi ci kër gi mu dëkk sa kër nga gis fa kaaba gi lan lay firi euh, baax na lool li muy firi mooy dana firi tedd nga ci yow maanaam yàlla def la nit ku tedd nit ku am barke dana firi léeg-léeg alal dana firi léeg daraja maanaam yëkkatiku dana firi léeg-léeg xam-xam dana firindee léeg barke ci yow ak sa njaboot danga gént dem màkka bu dugg ci kaaba gi waxoon naa leen dana firi sëy ci ab célibataire bu góor wala bu jigéen dugg ci biir kaaba gi dana firi ci yow sëy benn dugg ci kaaba gi ci ab célibataire dana firi euh, taxyirul axwaal maanaam euh, euh, changement ci sa dundin changement bi mën naa am ñaari anam nga nekkoon nit ko xam da nga nekk ci yoon wu neexul yàlla nga gént loolu dana fi jóge ci jóge ci yoon wu naqari yàlla neexul yàlla wu dem ci yoon wu neex yàlla wala changement boo xam ne dana fi di nga nekkoon nit koo xam da nga néewoon doole ci wàllu koom ci wàllu liggéey nga jóge ca dem ca gën a koomal nga nekkoon nit koo xam say jafe-jafe daa bari nga duggee ci jafe-jafe yi jeex nga jëm ci de nag mbégteeg bànneex kon alaakul xel baax dugg ci kaaba gi képp koo xam ne daf laa fekk nga feebar nga dem màkk ba feebar gi gént dem màkk ba dugg ci biir kaaba gi dina firi wér ci feebar xale bu jigéen bu amul jëkkër yoonu màkk dana firi ceew aajo bu faju léeg-léeg yoonu màkk euh, dana firi ci jigéen bu amul jëkkër ñaan bu nangu wala aaju bu faru faju ñenn ñi ne dana firi jëkkër ci yow comme ni mu ko waxee waaye jëkkër joo xam ne dana nekk benn borom xam-xam bu kawee lool walla boroom alal loolu lay firi mbalaan mi ñu muuree kaaba gi nga gént gis ko ci jigéen bu amul jëkkër dana firi dana firi euh, sharaf maanaam tedd nga ci yow dana firi place bu kawe lool ci yokkute wala yu mel noonu jigéen bi nekk ci néegu sëy gént dem màkka dana firi ci yow ëmb gént dem màkka dana firi réussite ak sa njaboot gént dem màkka dana firi yow ci sa jëm nga nit koo xam nga nekk jigéen boo xam ne ku jub nga kuy topp yàlla ci ay ndigalam ak dem màkka ci jigéen bu nekk ci néegu sëy dana firi stabilité néegu sëy kon gént di tawaaf ñëpp ñoo ko bokk bokk na ci gént yi baax lool lool sax tawaaf maanaam mooy wër kaaba gi lan lay fii euh, tawaaf ci gént euh, dañ la wax ne lim bi nga ko wër ndax jàpp nga ñaati yoon nga wër kaaba gi nga lim naa ko ñaari yoon de wala liim laa ko ñett yoon ñeneen lim ba nga ko lim wër bu dee ñaar la day firi ne ñaari at moo des ci nga am soxna mbaa nga am borom kër bu dee benn la day firi benn at moo tere ci yow nga am soxna mbaa nga am borom kër loolu mooy ñi nga xam dañu nekk ci ñi sëy ki nga xam dafa nekk ci néegu sëy gént di def tawaaf dañ lay laaj ñaata yoon nga ko wër nga ne wër naa ko benn yoon ñe at benn at dere nga dem màkk nga ne wër naa ko ñaari yoon ñun la boo defaatee ñaari at sa yoonu màkk la loolu la ko borom xam-xam yi firee mooy gént def tawaaf ci kaaba gi da gént di ñaan ci kaaba gi day fi di ñaan gu nangu am soxla doon ci ñaan yàlla mu nangul la nga gént di ñaan ci kaaba gi day fi ngay ñaan dana nangu kon ñëw naa ci jigéen bu nekk bu sëyu ñëw naa ci jigéen bu nekk ci néegu sëy ñëw naa ci célibataire bu góor ci yenn ci point danaa ñëw ci góor ci jëm boppam góor fii dana yóbbaale célibataire bu góor ak jigéen gént dem màkk ci yow góor nga dana firi ci yow gudd fan dana firi ci yow dollante ci alal maanaam sa alal yokk dana firi ci yow ñaan ku nangu amoon aajo di ko ñaan yàlla nangul la ko dana firi ci yow yëkkatiku ci daraja ju kawe ak góor bu mën a doon dem màkk kon baax na ci yow jigéen bu masa a sëy ba sëyatoo demal ci li ma wax ci célibataire bu jigéen la ma ca wax moo la yóbbaale yow ci nga bokk yéen a buy bokk même prix ci àtte foofu euh, bii ñëpp ñoo ko bokk da nga gént nekk ci màkka di jooy jooy yu métti dañu wax ne bu la fekkoon ci problème say problème day jeex bu la fekkoon ci njàqar day firi say njàqar yu jeex tàkk ci sa dund euh, wax naa la ki feebar gént dem màkk day firi wér ci feebar ki nga xam da am problème bor ay bor moo la topp nga gént dem màkk day firi yàlla na mu laa dimbali say bor nga fay ko incha allah kon ñi lañuy gént parce que kenn ku nekk ci bokkul ak li muy firi ci sa wax naa la góor bu am soxna ak bu amul soxna wax naa la jigéen bu am borom kër ak bu amul góor boroom kër wax naa la jigéen ju ma sa sëy yenn ci point yi ñëpp ñoo ko bokk da gént gis koo fa ku faatu sa la wala ke daal diwa xam nga nga gént gis ko ci màkk day firi njëkkalu yàlla ci moom waaye day firi mànd yàlla ca kookee kon kookee nekk na néew bu am yaakaar ci moom yàlla nañu ko yàlla defal ñu bëgg a dem màkk yàlla na leen yàlla dimbali ñu dem ñu dem yàlla na leen yàlla nangu seen aj wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.